ba tax ba man Babacar xam naa ne ma war a raw ba tax ba man Babacar xam naa ne ma war a raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa ma naa jóg fexee sant cantuk xol gu rëy ko rafet ku ak mayam rëy rafet cantam na rëy te rafet naa jóg fexee sant cantuk xol gu rëy gu rafet ku mayam rëy rafet cantam na rëy te rafet yor naa borub cant yor ak fay te képp ku yor bor yor fay bor ba fay bor booba war na te jot sëriñ bi yow ki ma may saa may gi may ma bu wér ak cant goo xam ni gennu cant dootu ko jot xam naa ni ma war a raw kuy sant maa war a raw kuy tagg maa war a raw kuy fab alal di la yët te mbakke maa war a raw kuy sopp maa war a raw ku lay liggéeyal ak ay yendoo gërëm ak a wut man yaa ma fëkke fi suusi benn teg ma ca kaw waa suusi xëy bokk may séenoo ki xel ak i gët gi may guréy na ma koy santeeti man la ma war ci cant yàllaa ko xam ak yow ki sut kama sut te donte saa su ma jot fab junni jox la nga jël du tax ma def li ma war ci cant xam nga ni kët te donte waxtu wu jot may ñukku ñukki di daw saa ñaq wi rot du tax may jot sa àq ji kët sa àq kenn mënu koo jot yàlla daala ko man yaa tedd dëgg te dib yaaram di ngeen ji nawet yow daala dim ceebo ngir koo xam ni jox na la lëf am fukki yëf yu ko gën yaa sakk wunti tawat yaa ubbi wunti njariñ yaa jox ku nekk njariñ far boole ñépp musal yaa def lu rëy lu rafet yaa ubbi wunti njariñ yaa jox ku nekk njariñ far boole ñépp musal yaa def lu rëy lu rafet